aigle di Medina ci wàllum jigéen ñoom kat jébbal nañ leen 10 millions. club bi nga ne mooy Girondins de Bordeaux bi mu ngi koy lim ci France bokk na ci club yu gën a mag ñu koy sos nag 1920 ba atum 2024 bii nag dañuy am jafe-jafe nag ci wàllum koppar. loolee lañ naan kiris financière ci noonu jàpp leen bu baax ñoom kat fësal nañ benn bataaxal jébbal ko waa fédération française de football nekkat duñ mën a renouveler li nga mooy licence yi ak seeni joueur moom lañ amal lëkkaloo ndax dafa seer seen am gafa kon li ñu mën donc de mooy ko ñu dem ci li mooy ligue amateur bi kon ñu ngi fësal ci kayitu xibaar yi nag club boobee nag am na joueur yu mag de yu fa jaar lu ci mën ni Chouameni Zulkoundé ak dem si yàlla Emiliano Sala l'Argentin wala boog kooki di Youssouf Sabaly sans oublier un certain Alé Zinès actuellement coach João Neves nag mi ngi ci yoon amal diggóode ak waa Paris Saint-Germain bu ñu soxandikoo ci média portugais benn mooy abola jàpp leen bu baax parikat noppee naka fay nag voilà nag salaire bi nga xam ne voilà dina mat dix fois lam daan gañ ci Benfica mooy que cinq millions d'euros par am kon sur des conditions personnelles de amal nañ déggoo ak joueur portugais boobee li ci des mooy kat. ñu mëna boucler transfert bobé amal dégo ak wa Benfica club bi ñi ngi seen ay waccay lolé la ñaan pré-saison ci États-Unis nak club yu mag nak dajé nañ fa Chelsea nak doxon na ma mu japp leen ba ñoom nag dañuy té mbuude ak wa West Ham ñaari bal ci ñaar ci club américain bobé ki nga xamné ne moy Maresca nak am na mbelteel dëgg da ci premier masam ndax ndamkat la ko bëggon tambalé comme ni ngi gëssé ci natal bi lolé résumé na ñu déssé ci club Blues bobé di Marzio moy fësel mu nekkat Chelsea kat noppee naa wàññi njëg bi nga xam ne Romelu Lukaku moom la ñoon sàkku ci ndjel ben moy que 37 millions actuellement nak nenañ ñi ngi laaj lu mat 29 millions d'euros nak japp leen bu baax nak Napoli nenañ ñom bu fekkee nak bëgg nañ leen fay 21 millions d'euros waye li leer balal Chelsea kat fixé nako à 29 millions d'euros ci attaquant belge bu am fan wéri at ak ben bi. Relevo feelu ko mu nekkat du kookee di Lukaku dongu de bëgg nañ ci dexeñ ki nga mooy Kepa Arrizabalaga bi nga moy pôle espagnol bobé jàppaleen bu baax nag bëgg nañ ko libérer nag voilà côté 15 millions de dollars actuellement nag Real ñoo ci gën a xuus bu ñu soxandikoo toujours ci relevo ndax bu fekkee lu nag dafay bawoo nag ñoom dinañ dalal Kepa mu doon doublure bu Courtois doomu ivoirien biir moom mooy Guéla Doué dina utile ci Chelsea nag stade Rennais dinañ laal lu mat 7 millions d'euros ci transfert boobee moom nag benn latéral droit la boo xarañ ci li muy amal jàppale nag dinañ ko abale nag fafa ca Strasbourg bi am na Chelsea nag voilà tot booyi la voilà mën na ne am na fa ay am na fa wàll buñ soxandikoo ci Di Marzio seen United fësal nañ seen maye bi ngeen moom lañ war a doxalee à l'extérieur maye bu taaru lool et que ci club bu Red Devils boobee nag pare nañ jaay lu mat juróom-ñaar ci seen ay joueurs bu ko defee voilà ñu amal nag voilà nouveau transfert jënd ay joueurs lu ci man ni ki ngeen mooy Wan-Bissaka Victor Lindelof Henry Maguire Christian Eriksen Scott McTominay Jadon Sancho wala boog Anthony bu ñu soxandikoo ci ESPN moom nag am nañ yaakaar lool ci moom doomu danuwaa biir moom mooy Rasmus Özilung ñi ngi fësal ci këy xibaar yi mooy takk lii nga ne mooy numéro 9 bi kon loolee sas la pour moom club bu Hammers bi nga xam ne mooy wes Ham jàppaleen bu baax nag def nañ benn offre nag ci doomu bi bien mooy John ran lu mat nag fanweeri million ci livre sterling jàppaleen ñu boole ci benn zone rien que ñu mën a amal déggoo ak waa Aston Villa bu ñu soxandikoo kat ci Fabrizio Romano ñu ngi ci waxtaan yi pour amal déggoo Time Sport mu ne Arsenal tàmbali naa waxtaan ak waa Paris Saint-Germain pour signer kii nga xam ne mooy Fabien Ruiz bi yam na toj na Europe bi ak jaloreem kon ñoom loolee mooy seen bëgg-bëgg Arsenal moomee nag jàppale nag mën nañ mën nañ abale kii nga mooy Aaron daal bu ko defee mu am plus de temps de jeu ndax balaa actuellement nag mën naa ne concurrence moo ko xaw a bari muy sukkandikoo ci Talk Sport ñu desandi ci Arsenal moomee noppee nañ jaay kooku di Eddie Nketiah jàpp bu baax nag bu fekkee am nañ offre bu mucc ayib buñ soxandikoo ci Mirror Football Turk Sport mu ne Ivan Tounay moom nag yéeneem ak bëgg-bëggam de mooy mu dem doxal ca Tottenham de Pape Matar Sarr été bi kon li leer ba leer naam ay club yu ma ne Arsenal bëgg nañ ko Chelsea waaye moom tànneefam mooy les sports su jàpp leen bu baax nag bés bu fa wéyalee nag foofee ca Brentford jaay ñu ko moom li mu fësula mooy kat dina dakkal contrat bi dox seen diggante. Fabrizio Romano mu ne les sœurs ubbi na waxtaan yi nag ak waa Arsenal bu ko defee ñu jaay leen doomu anglais bi mooy Reiss Nelson jàpp leen nag mën la leen ko abal ñu dëxëñ ci loolee ñu naan option d'achat obligatoire. Fulham moom mi ngi ci yoonu nag amal déggoo ak waa Arsenal pour signaler kooku di Emile Smith Rowe doomu anglais la aussi waaye montant transfert bi xaw a cher nag xayma nañ ko ci 42 millions d'euros Fabrizio Romano ñu ñëwaat ci moom mu ne kii nga mooy Ryan Sessegnon bi am ne nag jàpp leen bu baax Tottenham ba mu koy jënd amoon nañ lool ci moom yaakaar malheureusement wane fa boppam kon ndawu anglais boobee dafay utali nag ca Fulham wéyale carrière am Aston Villa nag mi ngi ci contact yi ek xuus na ci bu baax di ak ki ngeen mooy Joao Félix boo defee mu ñëw doxal foofee Brighton mi ngi laaj fukki million ci transfert doomu allemand bi ngeen mooy Pascal Gross waaye Dortmund moom mépp bi am na ñoo seen mën naa ne seen yitte la bëgg nañ ko lool ñoom kat 8 millions d'euros lañ fay Brighton kon waxtaan bi des na ko wéyale bu ñu soxla ko ci biir de Mirror football mu nekk Trent Alexander-Arnold doomu anglais boobee bi yam ne nag Liverpool tey bu lépp doone lépp moom la jàpp leen bu baax moom kat noppee naa nag valaan nag wéyale carrière am foofee naam Real mi ngi koy piis ay bët The Telegraph mu ne Liverpool moomee nag. jàpp bu baax nag li nga xam ko Newcastle nag moom la bëgg ko jaayee kooku di Anthony Gordon dafa xaw a di seen ab gafam ba tax na buñ mayul kat waxtaan yi nag pour suuf Newcastle moomee nag am na yaakaar ki ngeen mooy Eddie Howe bi mooy seen ab su boobee naam. Angleterre bëgg nañ lool mu ñëw remplacer ko kii di Southgate waaye ñoom les Magpies ñoom am nañ bala yàq ñu nekkat moom kat dina wéylee ak ñoom ndax am na yaakaar ci moom waaye loolu des na ko toppandi Ben White lay uyoo moom ginnaaw gi Southgate ba mu dakkalee li ngeen mooy aventure ak waa Angleterre moom kat nee na dafa bëgg def pause nag boo ko defee mu concentré ci clubam ñu ngi koy tataane ci Daily Star. ut seen doomu espagnol boobe dem doon nañ ko lim ci ay club waaye nag moom dafay mujj utale ca Bournemouth kon club anglais boobee bari nañ seen ay jéego jàpp leen bu baax. ndaxte jeune défenseur espagnol boobee dina wéyale carrière en Angleterre waaye nag montant transfert ba xayma nañ ko nag ci 18 millions d'euros ci li ñu déggoon nag mooy que bés bi nga ko jaayatee nag club bu Vieille Dame boobee jàppale dinañ ci am seen wàll. ek nag kii nga mooy Pep Guardiola dafa conseiller voilà nag xaritam bi nga xam ne mooy Roberto Deserbi sëkër mu dalal ki yéen mooy Pierre Emerick Orzabal doomu wa boobee ndax dina ko indil ndimbal nag mën naa ne moom déglu na conseil yu technicien espagnol boobee ki noonu nag si la ñaaxee nag ay njiitam bu defee ñu ma leen ko abal et que loolee la Tottenham def. Kevin De Bruyne moom nag dina desali ci Manchester City nag ndax jàppale bu baax nag dafa dàq benn offer bu rëy rëy bés bu demoon foofee ci ya Arabie Saoudite club bi mooy Etihad dinañ ko fay par semaine de 1 million de livres sterling. voilà nag loole koppar bu takku la buy sukkandikoo ci Mirror Sport moom ginnaaw ba mu ñëwee vacance am nag jàpp leen bu baax nag club boobee di Man City nag seen yéene mooy que mu xaatimaat contrat waaye la loolee ñuy waxtaanee la nag The Athletic mu ne Man City moomee ñu ngi nag baral seen ay jéego de ci doomu néerlandais boobee di Jérémy Frimpong bi nga xam ne nag voilà nag bu fekkee kii na mooy Kyle Walker nag dafay quitté mën na ñëw foofee doole leen Athletic mu ne ki kii mooy Julián Álvarez noppee na ki club bi mooy Man City nag waaye nag City li ñuy laaj dafa xaw tap ko lool ci ndaw argentin boobee nag lu mat 60 millions d'euros ak i mbaquus kon dina yegg lu mat 80 millions d'euros loolee dafay diis ci gàff ko yenn ci ay waaye li leer ba leer mooy que jour bi dafa bëgg am plus de temps de jeu kon moo xooli feneen mooy di koy arrangé. seen beneen jour bi nga ne mooy Calvin Phillips ñu ngi fësal ci këru xibaar actuellement nag club nag. ñu abal leen ko Moussa Diaby ki na nak foofee ya ci Aston Villa sañe ca Al Ittihad voilà montant transfert bi xayma nañ ko ci 60 millions d'euros ak Barça massé mu jëk ci li nga xam moy mooy ay pu jëm ci saison bi ñukoy koy pré saison japp leen bu ba ñom ñoy mujjé dande UE Orlot ben bal ci dara kooku di Pablo Torre mooy lakk caaxi di à la 47e minute kon kooku di Flick def na ndotel bu baax way ki nga xam nak mom moy Victor Roque nak vraiment il est passé inaperçu ci match bobé kenn gisu ko mu woné talawam Eskeman ko de confiance way ya li ki leer ba leer moy que Barça kan mi ngi ci yoon bu leer mi ngi ci yoon bu leer de pour man ko jaay ya, ya, da club bu Kalidou Koulibaly bi ngeen moy Al Hilal contact na Barça nak xibar bobu ñu man ko taataan ci kenn moy Fabrizio Romano kon club espagnol boobee nak mën na jaay bu baax nak brésilien bi nga ne wala nak amon nañ yaakar lool ci mom ginnaaw gi ma fay outali et que seen jour bien moy Alexandro Balde bi mu dafa won gañu gañu ngi feuseur ci këru xibaar yi moom nag am fa ver moy que kat lii nga xam ne moom mooy seen staff jox nañ ko ndigal à ce kat mu ñëw doxal ci terrain bi kookee di Gavi nag mi ngi def lu mu mën bu ko defee kat mu ñëwaat ci joŋante yi jàpp leen kookee di Hansi Flick nag moo ko dëggal mu ngi def lu mu mën à l'entraînement ek nag Barça bu ñu yeexee tuuti rek waa Man City nag dinañ leen doublé ci dossier espagnol bi mooy Dani Olmo jàpp leen bu baax nag bu ñu sukkandikoo ci santi pour mercato moy ka kat club bu Pep Guardiola bobé nak ñi ngi def luñ mën bu ko défé wala nak ñu mën ko dalal seen équipe bobé way nak joueur espagnol bi mom nak dafa am yene doxal ci Barça lolé moy bëgg-bëggam sport bilt nak moko fossel Barça mi ngi préparer ben contrat bu 6 ans ci koké di Dani waaye nak Diario Sport mu fossel xibaat bi mu kat Barça offre bi am njëkk naka def nak ci koké di Olmo Leipzig nag da ko mujj rejeté Barça nag lim bëggoon mooy que wala nag sak at muy fay lu mat 10 millions d'euros à partir de 2025 voilà nag mën naa ne ci ñeenti at lañ bëgg a fay loolee di 40 millions d'euros yi waaye nag waaye Leipzig nag jàpp nañ ne vraiment proposition bu ridicule dëgg de leen club catalan boobee nag wax waaye ci noonee nag Barça bàyyeeguñu. AC Milan amoon na ay waxtaan nag ak waa Tottenham ci brésilien ya bi mooy Emerson Royal waaye nag sport si ñi ngi laaj lu mat 3 millions d'euros bu ko defee transfert boobee mën a antu xibaar boobee ñu mën ko tataane ci Fabrizio Romano ek Plains du bëgg ñoo yem foofee de bëgg nañ dalal kii nga mooy Karim adde yi ci été bi yàpp leen bu baax nag dootu mu ñoom ñi ngi laaj nag lu mat 45 à 50 millions d'euros seen ilier boobee club italien biir mooy AS Roma dañoo bëgg nag wala nag waaxu club boobee di Atlético Madrid bi am ne nag moo njëkk a xuus ci dossier ukrainien bi mooy Akhnevdov bi ginnaaw gi Morata bam demee am na yéene nag dox mu ñëw doxal foofee waaye nag club italien bi nag def nañ benn offre bu 30 millions d'euros de waa Girona bu ko defee lépp mën a yemb xibaar booba ñu mën ko tàttana ci Matteo Moretto ek jàpp leen Bayern nag dafa mel ni club bi seen jiglaay la ndax chaque année voilà nag ñu ñu ñu laale waaye nag score fleuve kat la ñuy daan club boobee ci noonu ñu ngi fësal ci trois match yi mujjee joŋante jàpp leen Bayern daanu na ko fi 20 buts à 2 bi ci mujj wala bokk l'année dernière c'était 27 buts à et que seen coach bu bees boobee ci premier match am moom nag 14 bis à 1 de la daan kon score bi wàññeeku na ak lu ñu mënti wax waaye nag on verra lan lay joxe. et que ñu ngi fësal ci kayitu xibaar yi West Ham amoon na déggoo ak waa Bayern buy soxnikoo ci Sky Sport Germany Hammers yi noppee nañ fay lu mat 15,5 millions d'euros kàtti mbaqusa ci doomu marocain biir mooy Mazraoui kon mën naa United benn bëggoon na ko nag waaye Hammers yi voilà nag raw na leen ci dossier marocain boobee. kii nga xam ne mooy Keita Baldé naam amul loolee di club waaye nag mi ngi ci ay wàccaayam vraiment nag mi ngi dem ba jeex kon ñu ñaanal ko kat balaa mercato bii di jeex nag mu amaat club ek ñi ngi doon fësal ci këru xibaar yi balaa nag ki yéen mooy Habib Beye nag mën na doon benn option pour Strasbourg mu a ñëw remplacer kooku di Vieira bi nga xam dañoo tekkee ak ki yéen mooy Habib Diarra dañuy am wóolute jëli ci benn technicien yi angale bu ci Liam bi ne nag mooy seen nouvel entraîneur kon ki yéen mooy Habib Beye toujours kat vraiment amagul club kon moom aussi voilà ginnaaw bi mu quitté Red Star ba léegi mi ngi wër waaye nag benn mbébét la amoon mooy mu mooy mu yor club bu Ligue 1 waaye loolee antogul pour l'instant. que nag ñu jeexal ak xibaar bi ñu formé ko foofee ci académie bu Génération Foot mu def fay jaloore hôtel ca Metz nag xam ngeen ne Metz joueur sénégalais bi ñu footee bu ñu wanee seen talent dañ leen jaay ñoom noonu la ñuy fonctionné. Lamine Camara na ci noonu na nag. Southampton teg na ko lu mat fukki million la teg ci Lamine Camara waaye ci ginnaaw gi nag bu ñu sukkandikoo ci firme mercato di am na club saoudien bi am na nag ñëw na ci dossier l'international sénégalais boobee mooy le Pourmi moom miin moo yéeg ci Saudi Pro League muy uyoo ci Al Khadisiyah ci Arabie Saoudite jàpp leen bu baax nag club boobee noppee naa fay lu mat nag 16 millions d'euros le jeune milieu terrain sénégalais offre bu ni mel nag jàpp bu baax merci mu ngi koy càmbar bu baax ko defee xool ba xam voilà dinañ ko mën a accepté waaye ñi ngi sàkku asaka ñu tàgg lu mat 20 millions d'euros bu ko defee ñu mën a jaay ki yan mooy Lamine Camara waaye lu ñuul ci soow bi de mooy que l'international sénégalais boobee nag vraiment noppeegu naan dafay moom li bëgg mooy mu dem ci Premier League club bi mooy Southampton nag ñoo war a def nag vraiment effort def ay jéego nag xam ne jour bi vraiment jour bu xarañ la ci li muy amal voilà nag wane na ko ci ay moromam kon li leer ba leer mooy que ñoom buñ tegee lu mat. 18 à 20 millions d'euros maximum la leen ko jaay waaye nag buñ ci lim ay club saoudien yi vraiment c'est la bonne destination pour Lamine kon li nga xam ne moom la de à son nag mooy mu dem ca Angleterre mën naa ne boo demee ba sa fin carrière nag ba le banque ba léegi nga dem foofee uti ay koppar loolee kenn ayewu ko ak ngërëm ñeen leen di leen jaajëfal ci yeneen xibaar sur le